moytul avant bés bi di ñëw fekk ay jooy ay rëccu mais fekk wees na mënatuloo ñëwaat naan yàlla delloom ci kaw suuf ma jaamu la wéetal la mais c'est trop tard tuubal gaaw nga dellu ci yàlla jàpp ci alquran ak sunnent bi sallallahu alayhi ndax ci nga mën a amee mujj bu rafet yàlla nañ ci yàlla may ci nga mën a amee leer bàmmeel ci nga mën a texee bés du dugg aljanna lu dul loolu rek ci ay rëccu la lay yóbbu te safara la lay yóbbu subhanallah moo tax ngay gis bés penc nit ki di yuux di jooy avant na nga yegg si foofu muurul te yàlla rek a tax wéetalal yàlla nga topp sunnat bi salaa sallam képp koo xam ne yàlla alquran lay wax ak sunna nga topp ko képp koo xam ne waxu la yàlla waxu la yonent sallam bàyyi ko ak lu mu am ak mbooloo bu mu mën a am toppal alquran ak sunna ndax loolu rek mooy yoonu aljanna avant nga yuuxu naan yaa laytani kuntu turaba yàlla ka moo ma nekk suuf ndax gis nga safara dafa nga jëm yàlla nañ ci yàlla musal wala nga yuuxu naan yaa laytani qaddamtu li xayaati aka moo sama dund ma def ci lu baax topp alquran ak sunna avant nga yegsi naan yaa laytani lam uuta kitaabiya mooy boo jotee sa téere sa téere mu ngi nii subhanallah dañ la koy jox nga jox nga jël ko sa loxo càmmoñ yàlla na ci yàlla musal war a dem safara di yuuxu naan di yuuxu naan yàlla di wax wa amma man utiya kitaabahu bi shimaali yàlla nañ ci yàlla musal وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاسلكوه أفان يكفي فوق di jooy naan su ma xamoon sama téere du ma ko jot naan sama alal njariñu ma milliards yi nga amoon détourné woon ko alal ji nga yoroon jaamuloo ci yàlla ameewoo ko ci lu dagan dugaloo ko fu dagan ci riba nga ko jëlee ci sàcc ci wor ci wuruj ci wax du dul dëgg naxaate ngay rëccu avant ñu yegg si foofu nañu tuub gaaw avant ñu yegg foofu nañu dellu gaaw mbokk yi adduna bi dafa gàtt xam nga ñaata at nga am ñaata weer xam loo ñaata la dese nga naan cëy ak moo neexoon ndeysaan sama pouvoir njariñum tu étais ministre mais tey anam bàmmeel ministre lan la fay njariñ tu étais président bàmmeel xatuk bàmmeel lëndamuk bàmmeel lan la fay njariñ subhanallah di jooy fekk ni safara nga jëm sa pouvoir moo la yóbbu safara sa alal moo la yóbbu safara subhanallah alazim avant nga yegg di rëccu naan su ma xamoon kon topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma xamoon diw du ma ko topp allahu akbar ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا أكوان يخن ما تطيون تلك صلى الله عليه وسلم يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا akam moo neexoon diw duma ko topp liñ ma ma sawool yépp tuddee diine du diine ndax yàlla newu fa yonent bi sallam newu fa su ma xamoon diw duma ko jàppee xarit su ma xamoon diw du ma jël numéro su ma xamoon diw duma ma dem ci ay wooteem ndax woote yi bokkaale bida woote lan mooy que ni tooñ yàlla rabbul ard wa samawat tooñ borom bi subhanahu wa naan diw mooy yàlla naan diw moom mooy borom kun fayakun ma koy dégg ñu naan diw naan diw man du ma julli du ma woor la ilaha illallah su ma xamoon diw du ma ko toog fekk ni sa trop tard safara nga jëm yaa ngi nii safaraa ngi nii sa kanam fa nga jëm yàlla ci yàlla musa avant nga yegg foofu di jooy fekk safara nga jëm ndeysaan amatul kenn kuy intervenir ku lay dimbali nga naan su ma xamoon topp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ma xamoon ndeysaan donc topp alquran ak sunna nga yuux naan waruma leen woon topp subhanallah يلا نغيوخنا يا ليتنا اطعنا الله واطعنا الرسول نسان اكم نيوورون توب يلا يونتي صلى الله عليه وسلم سبحان الله افانا ني يكسي فوف دي جوي دي رتشو نان يلا ديلو وات يلا ميم ما وات حتى اذا جاء احدهم الموت حتى إذا جاء أحدهم الموت دافك ديكن نيت كي ديرتو نان يالا ماي ماتيل حتى إذا جاء أحدهم الموت حتى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سبحان الله فيك سفر مولا دسك أباني يكسي فوف نانيو توب غاو دلو تي يالا أباني يكسي فوف نانيو دلو جانغو سنيو ديني توب القرآن توب سنة صلى الله عليه وآله وسلم loolu ci nga mën a texe àdduna loolu ci nga mën a amee mujj bu rafet loolu ci nga mën a amee leer bu bàmmeel loolu ci nga mën a amee aljanna waaye lu juyoog loolu loolu safara la lay yóbbu lu juyoog loolu loolu mbugalu bàmmeel la lay yóbbee lu juyoog loolu loolu mujj bu ñaaw la lay yóbbee lu juyoog loolu mooy merum yàlla ak rëbbum yàlla ngay dund kon nañu dellu ci yàlla mooy tu bàkkaar nañu dellu ci borom bi subhanahu wa taala wéetal ko wéetal ko jaamu ko moom rek duñ ko bokkaale da kenn ak lenn waaye topp yonent bi sallallahu alayhi wa topp na képp koo xam ne yàlla ak yonent bi rek la topp ñu topp leen ala fahmi sahaba comme nu ko sahaaba yi dégg wa radiallahu anhu ajmain yàlla yàlla yërëm ñu dugal ñu aljanna